rëkkalee maanaam bu ñu rëkkalee coalition wàllu bu ñu rëkkalee coalition wàllu bu ñu rëkkalee coalition wàllu ci liste yi élection yi si affaire parrainage si affaire tàppale yoo xam ni du dëgg Touba élection du fa am loolu moom na wér Sëriñ Muntaxa na wér kilifa diine yi Macky Sall bëggul jàmm ci réew mi te élection yi bu xefee dara du bari dana tuur ci réew mi parce que li nga xamante moom la bëgg a def duñu ko nangu yow da nga yaakaar ne da nga yaakaar ne loxoom dafa da dafa nekk ci ginnaaw dama ni loxoom mi ngi ci biir parce que xam na ni ku ne xam ni PDS parrainage tëwu ko man mi dong parce que li ma joxe man na parrainage te amul benn na ñu bàyyi affaire caaxaan yooyu te affaire Touba li yi daf ko ñor parce que xam na ni Touba da koy ñàkk mu bëgg a jël juróomi député yi loolu duñ ko accepté ànd ak ay nit yoo xamante ni yu tekkiwul dara la loolu si accepté sëñ Mountakha nag na wax wax bu teelee mooy ñun président Abdoulaye Wade la ñu àndal ànd coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi investir na Touba ñetti député peuple Touba ñoo war a tànn nañu bàyyi ñu dem tànn waaye affaire tappali yi mu bëgg a def nii si affaire lu si duñ ko accepté maa ngi koy wax Antoine Félix Diome di ko wax directeur de sélection nañu bàyyi seen affaire tappale yi te bàyyi askan wi li ñuy def ñu tànn ñu tànn ki ñu a tànn mooy engagement ferme bi ma jël mooy élection yi buñ ko rakkalee muy PDS ak coalition wallu Sénégal ci li nga xam ne mooy Touba élection du am Touba man Cheikh Abdou Mbacke Badolo maa ko wax nañu bàyyi nit ñu dem tànn nañu bàyyi seen affaire caaxaan yi te ñu bàyyi li nga xamante ni moom la def ci réew pour bëgg fayee réew mi réew mi jàmm rek moo xew. sëriñ sëpp ñu ngi ñaan mi ne Macky Sall arrêté dafa jotaan ah. te lii ma leen di wax nag na ngeen ko xam bàyyi ko xel. nekkuma ci réew mi moo tax situation bi kenn dégguma si woon. bi ma voyagé guddi gi yëpp bi ma ñëwee dégg naa situation Touba bi man nag may wax en tant que njiit boo xam ne man la ñu tànn jiital ko département bi. sëriñ Muntaxa mi nga xamante mooy boroom dëkk bi moom laay waxal na wax ak Macky Sall xam na ni ab lay Wade mi ngi ci xolu askan mi ngi ci xolu Touba am murid la jiital nañu ñu ñu war a ànd liggéey nañu bàyyi listu ab lay Wade bi ñu dem élection ci jàmm pour askan mantaan d'accord muy liste bi du waa wàllu kese la waa yeewee ñëpp si nekk may laa si appel waa yeewi ak ñoom Ousmane Sonko ñu interpellé ñu ñëpp ñaaw lu taxawaayu Macky Sall ci li muy def ba pare nag combattre ko ndax lii mu bëgg def ni c'est un boo xamante ne bu éliminé vingt et un département mooy vingt et un département yooyu yëpp moom moo koy gagné te kon souvent majorité da koy am euh, automatiquement te loolu donc duñ ko accepté duñ ko accepté Sénégalais yi nañu jóg Macky Sall bu gagné réew mi ci élection législative yi day laaj troisième mandat loolu nag duñ ko fi d'accord du la. d'accord voilà. jërëjëf euh, honorable député jërëjëf euh, kooku moo nekkoon euh, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moo doon yëkkate ay kàddu jëmale ko ci liste coalition wàllu Sénégal bi ñu wax ne dañu ko rëkkale may ko 48 heures pour mu compléter li nga xam ne mooy ay signature am Cheikh Abdou Bara